mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax fi ci ci image bi

alors nak moy li sabab émission bi di faram-fàccee ñu koy amal ci TFM àllarba bu jot ci waxtu bi tay ñu am mbégte di ci recevoir kenn ci candidat yi bëgg laaj réew mi euh, Boubacar Camara lay wuyo euh, mom nak nekkon na fi directeur général bu douane euh, nekkon na fi tam ci IGE nekkon na fi tam kilifa ci Socosim bari na nekk na itam avocat à la cour dinañu waxtaan ak mom ci ponk yu bari tay mom lañu ñu recevoir mbokk yi ci seen émission faram-fàcce ak télévision Futur Média monsieur Camara ñu ngi lay nuyu.

Euh, maam bu Mouhamed Kunta di xalifu euh, Ndiassane di ñaan yàlla mu xare ko àjjana tas ci barke euh, ci loolu itam ñu dugal ci suñu njaal ak télévision Futur Média ci jaale ko umma islamique bi yëpp monsieur Camara man laaj bu jëkk bi rek nga xam ni bëgg naa ñu waxtaane ko mooy dama déglu slogan yu bëri yoo xam ne ci yow laa koy dégg muy jéngu dama koy dégg fippu dama koy dégg euh, te slogan yooyu dafa nekk ay slogan yu yu yu yu yu ànd ak fitna lan moo ko indi lan moo indi slogan yooyu pour yow lan moo ko waral. Euh, slogan yi àndul ak fitna slogan yi dafa dëppoo ak jamono bi. Mhm. jamono gu métti boo xam ne nit ñi dañu xoox nit ku xoox day soxla. xekki xaw ma nu ñu koy waxee ci wolof bu gën a simple maanaam day soxla beneen noy yi mhm. sénégalais yi foofu la ñu toll dañu xoox ci daw njël xoox ci njàng mu sooxe xoox ci feebar mënoo faju parce que amuloo kattan xoox ci mata xëy di taxawaalu xoox ci ñàkk kaaraange buy faat. no cest ñaari baat yi muy jëngu ak fippu dafay mel ni ku ne ci nooteel. war a fippu war a jéngu. boo xoolee xoox boobu. waaw boo ci buggee génn. da ngay jéngu jéngu nag ku koy def mooy jàmbaar koo xam ne da jang ba mënal sa bopp monsieur camara d'accord ma que jengu jàmbaara koy def man pour eh, man jengu jengu jengu nga baal ma mais jàpp ma ni jàmbaara koy def eh, jengu ragal la koy def eh, loolu nag loolu wolof bu motul la gis nga mag ñi bu ñu daan xeex dañuy jël caaya seen tubéy dañ ciy dugal suuf pour bañ daw même dans les conquêtes islamiques Bundan ñu daan dem ci yenn zone de combat yi. dañuy dañuy wax loolu la ñuy wax. brûler les vaisseaux. est-ce que juumuloo ci baatu Djengu? Euh, Djengu ragal la koy def jéngu euh, ragal du Djengu ragal day daw Djengu ku koy def. Mhm. day fekk nga pare doon jambar. Lolo moy tax nga am jalore. te Djengu boko edef def doo ci bañ jéng doo ci bañ jaan loolu mooy lolo jéngu jege na lool ak batu fipu boo traduire ci français da nga c'est un sursaut salvateur. da ngay gis lu doxul nga taxaw gis benn mbalit bu taxaw fii sonal leen nga ne ah nañ ko jëngu faj ko loolu moo indi baatu jéngu amul benn diis diis bu ci am. te amul beneen baat bu gënoon lu dul baat yooyu nga xam rek baat bi rek moo méngoo. jéngu coono baat bii moo méngoo ak coono bi Sénégalais yi di dund. Mhm. boo ko gisee rek nga xam ne Sénégal li fi dajale ci alal. Mhm. bi ñu amee indépendance ak léegi. ak potentialité yi mu am yëpp ñu toll fii ñu toll. am ñoo xam ne bu ñu añee duñu ñu reer am ñoo xam ne dañuy jàng ba am seen diplôme du ñu liggéey am ñoo xam ne fii mu toll nii ñu ngi xalaat seen fourniture école am ñoo xam ne dañuy fanaan duñu am dépense ah. mais monsieur Camara réew bu tolloo foofu. non mais monsieur kamara ndax jàpp nga ni euh, ndax jàpp nga ni loolu nga wax dafa àndul ak doxalinu réew réew dafa ànd ak ñii am ñi ñàkk foo dem ci àddina am na fa. ndax lii nga wax nii rek argument la bu doy bu jar jëngu bu jar fippu. waaw xam nga lu tax mu nekk argument bu doy. waaw réew mun na nekk ci tolof tolof. Mhm. ab jamono. Mhm. mais réew bu dajalee alal yëpp ba pare am nit ñu xarañ li ko mun yor loxo yi ko yor jëmale ko ci yoon woo xam ne yii fi mu jëm. Mhm. naatulul ngir ñëpp ñëpp a war a am gis-gisu fexe ba réew mi naat naatal ñëpp mu bañ a am ñaari senegal kii di.

Dugan, euh, mais xam nga lutax mo am importance léegi Sénégal dafa toll ci situation bu mosul toll moy am richesse yo, xam ne bu fi ak possibilité bu am aujourd'hui pour dugg ci yoonu développement bo xam ne kenn dootu ci génn mhm. fofu la Sénégal toll chance bobu ñu am yalla may ñu ko fii nag la Sénégal yëpp war a taxaw pour dugg ci politique pour fexé transformer réew mi fexé ñu baña sax saxé alal te da ngay gis ni ñu ci yoon bi ah oui nak dañu sori yoon bi dañu ku ci raay bi réew mu mu téggu ci yoon bobu dafa am nokoy xamé dafa am ay mandarga mandarga bu bi état bi du nasax xam nga état bu nasax état amul doolé sax négocier alalam état bo xamné amul doolé fexé ba mëna intervenir ba ñëpp jot ci alal ji mhm. état bo xamné day amel bor ay nit amel ay bor ay entreprise ba amel bor ño xamné dañ leen wara indemniser ku melni Cheikh Diop ba muy lak bopam ndax dañ ko wara fay fay ñuko état bu nasax entreprise yo xamné liggéey ñu wara am ba ñëpp jot ci seen bop jotu ñuko li ëpp ci liggéey dañ koy jox bitim rew koku boko gisé ci rew rek commencé l ci bo gisé ci rew liggéey kat liggéey bu retraité di jóg di wuti dépense rek xamal ne amna lu xew donc liggéey kat fi Sénégal dañu nekk ci coono boo xam ne seen ñaq sax fay xam nga ni nekkuñu ci réew mu développé eh, justement loolu xam nga ni nekkuñu ci loolu réew dañ koy développé réew du développé mais xam nga ni nekkuñu ci réew mu développé aussi parce que wax nii ci argument dafa mel ni ci réew mu développé mën a liggéey ba retraité sa question bi dafa am importance da ma ne <laughs> ndax ñu ngi ci yoon bi ma lay won mandarga ku nekkul ci yoon bi waaw développé wuñu développé guñu nee naa la am ñu condition pour développé dañu amul mandarga ku nekk ci nekk ci yoon bi ñeenteel bi nga gis jigéen ñi li ñuy daj nga xam ne dañu war a mënal seen bopp jigéen ñi mënaluñu seen bopp Sénégal fu ne ñu ngi fay dugg di dugg ci leket yi di cotiser di yeewu suba di yenu ay jën duñ ci am dara man gis naa Touba ñoo xam ne dañuy dañuy xolli gerte. loolu mooy seen jàmbaar.

bu ñu waxantee dëgg rek. même génn ci politique. Mhm. ñëpp a war a jax. d' accord léegi euh, monsieur Camara Boubacar euh, nekkoon nga fi directeur général bu douane boo demee tey bay laaj réew mi est ce que du jox nit ñi dëgg ñi naan. douanier yi dañuy dañuy jalgati alalu réew mi dañ koy dañ koy dañ nga baal ma mais dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy waaw dañ koy sàcc mais nga baal ma ci baat bi euh, ci douanier yi ni nga xam ne noonu lañ leen di gàkkale est-ce que bu ñu demee ba yow nga nekkoon directeur général des douanes nekk inspecteur de douanes tey nga daan dangay laaj réew mi te ku ne xam ne ni loolu laaj na réew laaj na alal est-ce que loolu du jox dëgg ñi ja ñi jox xar bi douanier yi ci ñàkk ñàkk maandu ci alalu réew mi euh, xam nga man sama màndarga principal mooy gubi quartier man gubi quartier la soldat ma sol tenue gubi quartier summi ko sol tenue marin summi ko sol tenue douane Soumiko, soltenu inspecteur d'État Soumiko, soltenu... Euh, secrétaire général ministère Soumiko, soltenu avocat Soumiko, soltenu chef d'entreprise Tolsoni, président privé bi kon kon fi mu ne des fi nga euh, taxaw nit buy sangu waaw du summi li li ci du mhm. kon nit dafa lien ak affaireu laaj réew. affaire laaj réew jamono la da fay am fumuy toll. déglu rek euh, douane nak man. dama len respecter mhm. parce que dama ci mag mhm. dama ci ciy dugg ñaar fukki at ak ñent la am. def fa 17 ans diriger ko pendant 4 ans. Mhm. bu doon ci résultat douane ak liguey bu set rek lañu def élection man damay jall premier tour té respecté douanier yi gis liñu daj gis ay douanier yu dé ci xéxal sen économie. di xeex ak ay fraudeur seeni njaboot ba léegi nekk ay orphelin ak ay veuve man respect boobu laa am ci douane loolu laa xam man ci douane et loolu image boobu laa gisoo gisoo douanier ak euh, alal ju ne gaañ image gisoo douanier ak alal ju ma ne la ju jaaxal waxuma la douanier waxuma la douanier naa la fonctionnaire waaw bu am alal ju ne rek fi ko jëlee jaaduwul waaw ah. mënul loolu laa bëgg a dégg man mii di wax ak yow waaw fonction yi ëpp rémunération yi ñu a fay ci fonction publique bi occupé naa ko képp ku la né mën na liggéey fonction publique ba dajalé fa alal bu wara tax. Ah ñu né milliardaire euh, fofu la jëm ma ngi ñëw ci affaire rajo bu yàkkamti ok lolu mom logique mhm. laaj réew nak du affaire alal laaj réew ab gënt la man dama ànd ak ab gënt go xamné géntu ne Sénégal dafa soxla. naka jekk kay gént la mën a doon. gént la non gént la mën a doon. gént la mën a doon. waaw gént la mën a doon te gént la te gént moo yore réew. gis nga gént moo yore réew gént boo xam ne dama yaakaar ne man Sénégal toll na foo xam ne dañu war a fexe ba ñëpp gëm ëllëg. Mhm. loolu mooy sama gént gént bi nag day ànd ak gis-gis. gis-gis bi mooy mun nañu naatal senegal ba ñëpp jot ci man dama xam li war ci réew mi ndax fi ma jaar xam li ma war ci réew mi ma jóg di def li ma war ci réew mi loolu moo yëkkati. Mhm. alal ji koy liggéey produit bi nga nekk nit ki nga doon fi nga jaar ak li nga def ak ñi xam wóolu la xam sa jikko xam sa njub ñooñu ñooy jënd sa produit.

liggéey wala ñu nekk ci privé bi dañ naan toog fële rek ne du ñu dugg ci politique bi léegi ñun xam nañu que loolu bu ñu ko defee du ñu def suñu responsabilité. Mhm. loolu moo tax affaire ku yaakaar ne politique da ngay ñëw dajale xaalis pour laa ci réew xamuloo li xew lii indi xaalis bi mooy produit bi. nit ñi ciy def seen i effort ku nekk génn sa gafaka ku nekk takk sa ndigg jël sa temps def ci ñëw wax ak nit ñi expliquer leen yow mi ku lay voteloo jël sa oto def ci gasoil essence ma ne jël sa oto def ci gasoil def essence dugg ci dëkk bi da ngay liggéey utali maatam ah kon da nga foog ne kon danga foog ne nit ñi dañu toog rek liggéeyuñ mais ñun mosuñu liggéey mosuñu lekk dërëm boo xam ne bii ñaxuñu ko dama lay nettali dara gis nga bi ma nekkee xale di dugg douane sama papa daf ma woo ne ma élage yaa ngi dugg ci koor boo xam ne koor bu doy waar la parce que dafa am ay réputation yu ci am ba mhm. ne ko ah papa loolu de dëgg la mu ne ma xam naa sax ne maa la yar xam naa la bu baax lenn rek laa lay wax de ñaanal naa la de loo soxla di nga ko am àdduna sa yaay ñaanal te gërëm naa sa yaay lenn rek laa lay wax de bés boo dugalee sa biir loo xam ne lewal dina soppala ko poson man noonu lañ ma mooñee kon loolu laa gëm valeur yooyu ma gëm moo tax ma mën a bi ma gisee ne sama réew tolloon na ci gutt goo xam ne te man du lépp laay wax xam nga man du ma gis lu ma xam yëpp wax mais li ma gis ba mu tiital ma ba jaaxal ma ba ma jóg dugg ci politique bi man xam naa ne euh, ñëpp dañu war a jóg pour xeex li fi nekk nii kon nag. dama bëgg ñëpp d'accord la. kenn du stigmatiser corps loolu gisoo ko woon bi ngay nekk numéro 2 Karim Wade gis bi ngay nekk numéro 2 Karim Wade ndax gisoo woon euh, loolu ci réew mi. ma ne maa ngi lay wax ne. bi ngay nekk numéro de man bu Karim Wade nga xam ni. Mm. ku xam Karim ku la ku la dégg sax wala mu xam la daanaka ci Karim Wade la lay la lay la lay féetale. loolu yàggul dara. waaw xam nga. Euh, est-ce que li nga li nga décrire nii xamoo ko. moom laa lay expliquer li ma décrire ci Sénégal dama ko gis muy dem di évoluer. ma gis lu ne bi ma demee ba gis ne lii laaj na nit jóg ci ma def retraite anticipée en 2012. man suis pas numéro 2. non retraite 2012. le pouvoir bi dem aussi. Je suis déglu rek maa ngi ñëw man bi may liggéey ci ministère bi inspecteur d' la fa détaché ma def fa liggéey diriger fa 5000 personnes. comme secrétaire général. comme secrétaire Non, ñuy bi bi ñu bi ñu koy jox asamaan seeg suuf nga foon. ma ne bu mucc ayib ñu def ko fa waaw ku munti nekk ministre à quelle que soit sa coloration politique que fonctionnaire fonctionnaires ci da nga garder ce périmètre nga liggéey sa liggéey loolu bokkul ak engagement politique da ngay servir ce réel en tant que fonctionnaire nga décider de servir ce réel autrement donc yàqu-yàqu Sénégalais, depuis 58 huit ans dafa tegle ñu naan dana baax ak du baax ak dinañu défar ak duñu défar mu dem ba tollu fo xamné fi ñun yaakaar nañu ne.

man li ma toppatoo mooy liggéey bi tax ma koy def te ñëpp seede nañ donc euh, toog di wax ne euh, da ngay engagé wu parce que da nga xaar man sama vie sama carrière boo xam ne gudd na gudd boo xam ne ñetti at yi ma ci liggéey ba daje ceeg Karim Wade muy daje boo xam ne bii liggéey la ñu ànd ci àndu liggéey ci ay règles yu leer naññ lépp prouvé ko kooku mënul résumer sama carrière hmm. mu ngi mel ni daje daje daje célébé yoon rek nit boo leen dajee ci rond point Carrefour dara xeju fa. d'accord liggéey rek ku nekk dem. kon nag amalgam boobu jaxas boobu moom. waaw euh, dafay intéressé yenn politiciens yi mais moom leer na sama. ndax mën nga ma wax wax sénégalais yi ne amul benn baara yëgoo sa candidature ak Karim Wade. Ah. amul benn baara yëgoo sama candidature ak Karim Wade man coalition fippu moo ma tabb candidat bi ma xoolee Sénégal ba gis li ma gis dama def déclaration d'engagement politique waxuma candidat la de. dama ne Sénégal ni le mel man ma def déclaration d'engagement politique ma waxtaan ak homme politique yépp ñi ma yaakaar ne ñoo bokk ay valeur hmm. ne leen nañu booloo nekk benn parce que lii ma gis doy na waar ma dem bokk coalition fip hmm. bi ma ñëwee coalition fip ñu def procédure naka la ñuy désigner candidat hmm. loolu Sénégal mu fi doog am ñu def concours mu am jury comité de sélection ma jël premier ñu dem jury d'honneur avec toutes les responsabilités régionales. yeneen un candidat qui fa nekkoon. bi ngay jël premier. bi may jël premier man la Il y a Ibrahim Silla. am na ñeneen ñaari candidat yu retiré wu bugguma tudd seen tur. nga baal ma loolu. Ah. donc bi ma jëlee premier. ñu dem jury d'honneur. ok ñu validé ko. Mhm. ñu dem directoire ñu valider. ko. kon nag man autoproclamé ma candidat man dañ ma tabb jox ma responsabilité kon mënuma nekk candidat keneen ku dul candidat coalition FIP. ñiy wax ay affaire u nii ak naa ñoom ñoo xalaat li leen neex rek te xam naa lu tax ñu xalaat ko parce que daf leen xaw a gêné. xam nga gis koo xam ne kii euh, yàgg na ci état bi fekkee na gis na lépp te munoo wax ne mënul liggéey parce que fépp fu mu jaar décoré nañ ko ci liggéey ah mu ñëw jékki-jékki dugg ci politique bi indi programme am di teg. kooku il faut que mu xaw a gêné tuuti. kon man yooyu mënuma jaax. d'accord affaire bi nag du ay décoration sociale ci la bokk politique ci Sénégal. Mhm. cest à dañ la ciy xam. Mhm. yàgg nga dugganteek nit ñi xamanteek ñoom xam waa euh, ma Mbakol xam waa Sigi Coor cest à ñoom ñu xam kuy Boubacar ci ci du ay décoration sociale bi ñu la ciy déggee di la gis dafa yàggul Boubacar est-ce que yaakaar nga dina yomb ci yow. ah dara du yomb man mosuma bëgg lu yomb su ma lu yomb damay toog fi ma toog rek. ah man liggéey naa nag ba am nag wax dëgg yàlla ay position yu baax looloo gënoon yomb di man mosuma bëgg lu yomb déggoo lu ma la wax góobi quartier laa man góobi quartier la te ma sol mbubu politique waxuma dafa yomb lii tax nag nga gañe sa politique fi ngay teg sa tànk ñi ngay waxal liggéey boobu ñu ngi ci te li ci kanam rawu li bët xam nga Sénégal dañu soxla politique <coughs> mais dañu soxla ay hommes politiques yoo xam ne ñooy changer dëkk d'accord ñoo xam ne duñu leen

dëkk Sénégal fu ne nga teg fa sa tànk am fa ay militants coalition fippu ñu ngi Sénégal yëpp. sama mouvement loolu laa lay wax référence politique mooy élection bii ñuy participer ñu gis. loolu moom li ci kanam raw li bët la ñaanal ñu rek monsieur Camara wax nga ma <laughs> wax nga ma ci lu gàtt nag ni Baara Yégo amul sa diggante Karim gàtt na trop gàtt na li ni nga ko résumé mën naa la ko nangul mais ndax loolu mën nga ko wax itam ci sa diggante ak président Macky Sall ni ci benn baare yégoo amu ci yaa ngi dëkk Grand Yoff bëgg na xeex xalifa Sall mu ne Boubacar jógal mais yaakaaruloo loolu. non xam nga man déggoo euh, loolu Khalifa Sall euh, ànd ak moom di xeex Macky Sall moo gën a yomb ci man ànd ak Macky Sall di xeex xalifa parce que Khalifa su ma ami d'enfance la ñu bokk Grand Yoff c'est-à-dire jógoon ne dama ànd ak Macky Sall di xeex Khalifa Sall Grand yëpp ay génn ci man parce que ñun ay Grand Yoffois lañu ñu màggandoo. Khalifa bi may def politique di Dougou PS UPS PS man may politique de RND c'était en 1976. Nous, avons fait bokk parti. c'est la première fois dans l'histoire man ak Khalifa ñu bokk positionnement dans l'opposition donc quel est le suñu diggante. kon nag Macky Sall président Macky Sall bu amoon maxaama utiliser pour ma xeex kenn dina am ma xam dugal ma ci gouvernement wala mu liggéeyloo ma man principe lay fonctionner. man est-ce que soxla na la ci gouvernement aussi. man euh, man waxuma ma ne est-ce que aussi euh, loolu man je pense que je pense que du question soxla man ma soxla wul gouvernement man li ma soxla maa koy def liggéey naa Sénégal mosuma jël poste politique li tax jëluma poste politique maa ko xam léegi nag man ma décidé jël poste politique en passant par le suffrage loolu mom, waxu naxa sa xam nag la rek. waaw ay ay baare yëgoog yooyu. ok leer na leer na nañ. bopp du ya bët du yan waaye xam lu bopp atane mhm. fo tollu ci parrainage bi. parce que mo lay def mo lay def candidat potentiel. xam nga parrainage bi parrainage bi xeetu dëgg sërëx la bo xamne Macky Sall bi mu éliminé bi mu bi mu engagé élimination Karim Wade ak élimination Khalifa Sall dafa ne léegi ñi maa ngi di éliminer mais bëgguma nag ay candidat yu bess feul parce que vous feulé rek du bax comme candidat yu ba am fu ay nit def parrainage bi mu def ko ni ko defee ñëpp gis ko concevoir ko seul voter seul def continuer ne day jënd ay signature pour fexé nit ñi am parrainage deug sërëx mu def ko mais erreur bi mu def moy que loolu dafa booster candidat Nous ñu dugg ci terrain organiser seen parrainage léegi nag dafa am ñaari catégorie nit dafa am ñoo xam ne dañ naan ah kii de wax rek kii de boo sax du am parrainage yéene wuñ la ko ak ñoo xam ne dañuy wax ah kii de day wax rek boo demee du am parenage eh waaye kii daal mënoon na nekk candidat bu nekkoon candidat dina baax de waaye du am parrainage ñooñu dañ la ko dañ la yërëm ñi nga xam ne dañ la yërëm bëgg la dimbalee nañ ma parrainé ñi nga xam ne rek dañ ma yéene ma bañ am parrainage ma ne leen yéene néeg nag borom a cee fanaan. bu ñu demee ci dépouillement bi dinañ xam yàggatul. de ngi bëgg yàgg kay. mois bi la mois bi décembre lañ ci décembre la ñu novembre. mais dégg nga ñu bëri xam man duma wax sama parrainage parce que fipp waxuma ma wax sama parrainage su ma fipp waxoon léegi ma wax sama parrainage ma wax la chiffre yi ma am région yi ma ko amee ak lépp mais loolu indiwu ma fi parrainage moom non non non eh, parrainage moom wax dëgg yàlla loolu moom euh, terewuma nelaw monsieur Camara fippu fippu def nañ la seen candidat nekkatuloo di déglu fippu yaay seen candidat ñoom ñoo lay déglu tey dama bëgg parce que bëgguma nga wax alibi boobu su fekkente ni parrainage yi am na fo toll wax ko ñu xam ni fii nga ci toll ma ne sama parrainage waxuma ko ci rajo bi tey man kay loolu laa la wax su jotee dinañ ko wax loolu mooy sunu stratégie mhm. bu dee bu jotee dinañ ko wax li ma mën a wax rek bu dee ñi nga xam ne daal dañu bëgg a tiit pour parrainage bi maa ngi dalal seen xel mhm. bu dee ñi nga xam dañ ma koy yéene ma bañ koo am nee naa leen yéene néeg la loolu kay tontu bu leer la. Boubacar est-ce que dina yomb ci yow nga dajale parrainage parce que bu passé sa tour am ñu la xam am ñu la xamul sax euh, ci sa entourage bariwul ay kàngam yu ñu ci mën a ràññee est-ce que dina yomb ci yow nga dajale fii kii dajale fële ngeen mën a boole. mu nekkul sax xam nga loolu moom stratégie la sama parrain sama entourage xamoo leen. moo tax mais looloo doy waar. waaw ah, looloo doy waar man suñu stratégie la ñun ñoo xam lu tax defuñu loolu ma ne la yuuxu dina jëpp fu ko foogeewul. man xam naa bu baax li ma la wax jàllal ci leneen. d'accord ci li nga xam ni laa bëgg ñu ñëw ci mooy dama bëgg sax ñu taxaw ci parce que aussi dafa yomb nga ne ma jàllal ci leneen rek ma jàllal ci leneen bu fekkente ni da ni ma sama sama sama entourage doo leen xam parce que samay stratégie la loolu dafa dafa dafa dafa dafa yomb dafa ko oyof est-ce que mënoo ñu wax leneen loo xam ni mën nañ ci gën a jàpp lu dul loolu. waaw xam nga pour pour expliquer la. waaw xam nga boo def politique toujours da ngay am stratégie da nga naan man. Mhm. Euh, dama bëgg a tel moment. ma def nii. ñun bi ñu ñëwee dama lay jox rek quelques quelques xorom parce que loolu amul importance li am importance mooy lan nga bëgg a def ci Sénégalais. yan réforme nga bëgg a def. Mhm. loolu moo am importance. Mhm. ñun bi ñu dañu xam image bi ñu amoon mooy image fonctionnaire. Mhm. boo xam ne ko politique. image boobu il faut que nga dindi nga travailler ba dugg.

d'où da ngay rek développé ko ci réseaux sociaux wala ay discours wala ñu lay inviter day fekk nga am tank mhm. day fekk nga implanté wu. Mhm. ci région yi. am ñu ak yow. Mhm. koy def tranquillement d'accord te liggéey boobu euh, bugul coow. d'accord voilà d'accord dinañ xaar résultat bi. ñu boobu liggéey. te loolu te loolu daanaka. dinañ xam lan la jur. Euh, wax nga ko nee nga euh, li am solo pour yow mooy ñu xam sa yéene ci réew mi man ni ñi ñuy te tax télévision bi dafa baax ki laaj réew mi ñu xam moy kan. waaw man loolu dafa am solo. waaw loolu itam yaakaar naa ni lu lu am solo la motax ñuy waxtaan di dugg euh, ci yenn question yi par rapport ak yow. Mm. Euh, dañuy wax nak ciow fichier de FIDJIP dégg nañ Samuel Sar wax ci dégg nañ ñeneen wax ci fichier bi ba sax euh, ñu ci opposition bi fas nañu ci yene amal marche. Mhm. Euh, pour fichier bi ñu jot côté mu leer lan mo ci sa taxawaay. waaw ñun euh, ñi fas yene def marche bobu ci la ñu bokk ñun ñu ngi bokk ci front de résistance opposition en tant que président du mouvement Dieng. Mhm. fichier bi li ci suñu xalaat mooy que président Macky Sall bi mu ak légui ba gis né système biñ fi mettre en place dafa am transparence dafa que di ko pièce par pièce ñeu taxawal carte d'identité ñaar ñi kenn sant ko cdao moko sant kenn sant ko. bu wax ni sant ko ko. amul kuma ak effigie amul instruction CDAO bu imposé nga bolé ñaar ñi déglu rek man wax dama ko xam mu leer mu fichier changé ko ba pare mom rek ko yor ken yoruko ko dem na ba laaj nit ñi parrainage ne la damay laaj 0,8 à 1 du fichier té fichier bi joxu ñu lako té c'est obligatoire accès fichier bi pour tous les partis dañ ko wara am donc yow liñ lay laaj nombre biñ lay laaj fichier bi nga wara a fi nit ñi nek mom rek ko yor. li ci Union européenne wax après bi nga xamé ni càmbar nañ ko doyu leen que fichier bi baxna au moins. am ay problème de fichier bi déjà baxul ensuite ñepp gis nañu ne.

nga ñëw organiser élection def ay bureau de vote yooyu kenn xamul fi bureau Aujourd'hui, il y a am contradiction même ci résultat yi bureau yi nga xam ne yi moo la ci commission yi ak bureau yi nga c'est ne moom la justice bi di prononcer loolu am na Sénégal mhm. nga ñëw distribution carte a yi de surveillance Tout la neex nga distribuer tout la neex doo ko distribuer tas carte nit ñi cartes. fi nga xam ne say opposants ñoo fa rek nga tas seeni carte donc dafa organiser pagaille électorale boo xam ne ci élection législative yi la am couronnement mu ñëw nag yokk ci sur le gâteau mooy système de parrainage avec un contrôle boo xam ne bi kenn nous nu muy demee donc aujourd'hui élection yi li ñu amoon comme ak yëpp wekki nañ ko amatul transparence ci élection yi lolo mooy le combat de tous les sénégalais kon man d'accord ci n'y xeex pour que transparence am ci élection bi koo compétiteur nga nga war a bokk ci élection yi changer les règles du jeu mais dégg nga ministère de l'Intérieur, le lu jëm ci retrait des cartes. ministère de l'Intérieur, presque 99%. amul ministère de l'Intérieur, intérieur parti au pouvoir warul organiser élection même ministère de l'Intérieur, si on a une maturité bi war ak yi ñu am yëpp ñu régler ko mun nañu organiser mais si mu sommes nii dañu autre haute autorité. chargée de l'élection ba nga les partis sont représentés mais lu gën a yomb loolu lu leer dafa yomb dëgg dafa yomb donc loolu ministère de l'intérieur est disqualifié pour organiser les élections surtout ministère de l'intérieur ministre de l'intérieur boo xam day wax ne moom objectif am élire Macky Sall au premier tour donc loolu moom mooy réalité fichier bi te loolu kenn waru ko seetaan. Mm-hmm. léegi monsieur Camara. Mm-hmm. wax nga ni politique bi am nañu gan. Mm-hmm. yaakaar nga ñu gis lu ñu mësul gis ci acteur politique soo ko waxee. waaw ñun dañu gan bi dafa ànd ak ay ñu parce que ñun ganu politique yi mooy technopoliticiens yi ñi nga xam ne dañu jàng. xarañ xam état xam nit ñi dëkk ci société bi yeewu fi yaroo fi defee fi daara xam société bi nuy fonctionner ba pare yeewu na dañuy dugg ci politique bi technopolitique yooyu ñooy gan yi am na si ñoo xam ne ay hauts fonctionnaires la ñu wax. nga yaakaar ñooñu yàgguñu fi. Euh, yàgg nañu ci état bi candidat yoo xam ni kenn candidature indépendante lañu. li fi am ñëw taxaw nekk technocrate nekk lépp gis nañu la. non ñu dem ci ay résultats. ñu gis ni mu dem. oui loolu waxuma ne waxuma ne Monsoul am. dama ne ampleur bi am aujourd'hui nga gis ñu faqé ci ay corps état yu faqé ci ay privé nek ay cadre taxaw dugg ci élection mais sont bu amé dañu wara nit mais en même temps c'est une source d'espoir Madame Yakarla, la yakar Sénégal am na quand même mettre ñu de l'avant intérêt personnel dañu gis ne réew mi tollu na fo xamné war nañ ci gan lay wax. Mhm. kon critique def liggéey bi ñu war a def bañ a fexe bañ a def erreur bu consister à penser que politique ay discours lañu politique c'est le terrain ci biir terrain bi ngay dem loolu incha allah mhm. mais nag li ëpp solo mooy offre bi ngay def. d'accord lan ngay proposer Sénégal. ci ci ci wàllu yoon. tudd nga léegi mbiru Cheikh Diop bi nga xam ni ñàkk na bakkanam euh, ci ni mu ko expliqué yéex a jot indemnisation ndàmpaayam moo ko waral euh, tudd nga ko léegi ndax loolu yaakaar nga ne am na matuwaay yu ko mënoon a waaw xam nga état bi dafa leb leb ñëpp ba mënatul dem mënatul fay kenn fournisseur yaa ngi jooy ñëpp même ñi nga xam ne dañu jël seeni élèves dénk leen ko ci université yi sax mënuñu leen fay ba ñuy def ay grève donc loolu mooy état bu nasax aujourd'hui Sénégal li tax doxul mooy que alal ji fi ñu ko dugal lañ ko war état bu nasax mooy def terre bu rëy bi nga xam ne mosoo ko gis yow ci Afrique état bu nasax mooy def autoroute Ila Touba bi nga xam ne jaar nga fi waaw ak mooy yi mu ko defee c'est-à-dire nag nga bañ a nii liste aussi waaw loolu mooy nasax nag xam nga nasax nasax mooy nga ñëw di xeexee doole jàmbur état bi doole jàmbur lay xeexee c'est-à-dire que financement yi muy def yëpp da ko leb te ñim ko leb ñooy def liggéey bi entreprise yi fi nek liggéeyuñ ko soy xeexee doole jàmbur lolu moy nasax bi gën a bon ci nasax yi moy état bu tayal lañu c'est un état absent ci population yi sen problème ba parer un état paresseux au lieu nga fexe nooy exploiter ses ressources pour investir ci secteur porteur de croissance yi comme agriculture nga développer bay dundé bay denc bay soppi bay weccee hein bay bay bay transformer nga def ko jël élevage jël ndawal li jël der bi defar fexe ba nga xam ne nga jóge ci meew mi ba yegg ci fromage bi sax bu la neexee nga jël pêche dugal ko ñu am pêche nga def transformation mareyeurs yi am liggéey am ay car nga am conservation ñoo koy def déglu rek ma expliqué la da ngay créer conditions yi ba nga xam ne financement bi fa nga koy dugal artisanat ñi nga xam ne ñooy liggéey ci réew mi di ko dugal nga dugal fa xaalis bu bare loolu xaalis koy def xaalis boo lebiwul doo ko mën a def inch loolu laa lay wax nag erreur boobu laa lay wax nag exactement loolu la ñu gëmloo sénégalais yi

سالك خملو صح في غير sax خالص بي خملو فوكو bi xamuloo لبي لبي غنا يوم لب بو لين gën لاج بو امي ستابيليتي بو مو laaj غنا يوم stabilité. غنا يوم نياتا نيت nga meuna ngay gis ñu leb te duñu leen lebal. bu ñu leb gëna yomb aussi. leb non xam nga ni leb leb daal leb daal moo gën yomb jël sa xaalisu ressources transformer ko lolu dafa laaj xam-xam ba pare laaj loxo yu set ba pare laaj nga jiital intérêt rew lebi dafa laaj loxo yu set. non leb mom leb ñu lebal la dafa laaj waxuma ne waxuma ne leb. yomb condition ki lay lebal ki lay lebal xam na bu baax balaa mu laa lebal mu wóor ko ne war ngaa mun a fay. waaw bu la wóoree ne am nga stabilité. waaw am nga croissance parce que li muy dugal ci xaalis moom mooy indi croissance bi. mais croissance bi du du du wàññi pauvreté bi. li nga wax croissance. loolu lu ñu war a lu ñu war a lu ma tàcc apprécier la eh, loolu mooy erreur bi. ah déet waay bul tàccu loolu laa lay expliqué cest dañu yàq xelu sénégale yi benn yàqu xel boo xam ne. ba ci croissance bu ñu yeewoo boo xam ne yow mosoo ko fi dégg. kenn du bàkkoo croissance boo xam ne bii. wa Sénégal jotuñu ci croissance bo xamné profit day dem bitim rew intérêt dette bi day dem bitim rew bo bo lebee liñ ciy tek bitim rew la jëm salaire yi gëna a kawe day dem bitim rew dividende yi société yi ko mom buñu wéccio ba fin d'année bañu fay seen impôt lepp day dem bitim rew croissance bobu xam nga lan lay defal Sénégal ruusitu nguru croissance ruusitu nguru kenn duko bako ah, Sénégal croissance rousse c'est la. Ah, mais xam nga société bu xam la ci bitim même chose même chose mais même chose société vous avez bénéfice bu vous ay étranger vous avez fait un des day dem. da nga des erreur politique ak économique bi le a hasardeux bi Sénégal croissance xam la <laughs> croissance ce c'est pas viable il suffit mu am ben choc exogène rek gisoo 2008 crise bi mu am gis nga conséquence bi dañu mujj di def ay goana di ut luñu dundé donc croissance bobu mënul mënul am mujj de ci mur bi lañ jëm donc dañu wara changer moteur croissance yi ëlbëti changement de cap bobu nak mom le régime bi mënul def et changement de cap bobu moy tax potentialité ñu am ci ressource ñu mën ko utiliser ba mu am jéxital ci sénégalais motax nga mëna am sénégalais bu xarañ bu yeew. léegi boo xam ne day liggéey looloo tax nga bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg a xaxtandiku la sax laay wax ci euh, terre bi wala ci. ci waaw xam boo jëlee boo ñëwee boo ñëwee jël Sénégal bu mel ni Sénégal nga xam ne aménagé wu sa territoire. nga xam ne yaa ngi bàyyi géej nga am ci yoon yow mën a dem nga jógee dakaar mën a dem bari Bargny mën a dem yéen ci batu ci lu gaaw te yomb nga mën a am système de transport bu ñu organisé nga am fu kaar yi di jaar am fu oto yi di jaar am fu mobilité di jaar nga defar sa tam transport public ba mu sotti nga xam ne bu la neexee sax mun nga gaare sa oto bu la neexee da nga dugg transport public doo am benn problème nga bàyyi ko fa investiroo ko nga ne dangay dem investir ci ay terre xam nga ne yow comprendre boobu luxe mais bu question jomb dafa nekk loo xam ne dafa dafa dafa dafa jotul dafa méngoowul ak li nga xam ne moom mooy indi Sénégal te def la dul indil croissance boo xam ne mais di ngeen ko gis yow balaa ngaa dem balaa ngaa balaa ngaa boote gàmb kay ah sa mbootu mot yow nit ñi bu jóge fii da ngay jóg wàcc liggéey ngay toog 15 minutes 40 minutes pour am oto. boo duggee ci oto nga def un an loolu lay réglé terre bi loolu mënu ko réglé. loolu lay réglé nga nga ma ne la nga dem xoolal projet terre bi. waaw mooy dem terre rek déglu rek moo wax la ci terre bi. Mhm. terre bi moom li ma la ci mën a wax non seulement tracé yi ñu wax duñ fa yegg duñ fa yegg amuñu moyen yegg fa dañ koy def par petite portion pour faire du cinéma te du am benn jeexital ci augmentation transport yi. nit ñi am moyen sen niveau de vie nga yok ba ñu mun jël transport public ba ñu mun a ut wala ñu dugg ci transport yu descend région yi nag yow dugg nga ci dëkk bi gis région yi région yi ni ñu meloon en 58 la ñu mel ba léegi. déedéet ay tali suuf ak man man fa la dëkk. déedéet soo demee jaareem gi yaa ngi fay fekk ay car. ñoo xam ne ñu ngi fay dem ay bus. ma ne amu fi woon bu la waa Tiwaawan gële yaa ngi fay fekk. xoolal bu la waa Njaareem ma ne bu la waa Njaareem jàppee. nga dem cee noo boo demee gis nga état bu demee état bu demee ba sax Dakar dem dikk sax nga ñëw nga def ko benn mécanisme boobu day concurrencer.

route le boo xam ne dafay participer ci aménagement territoire. waaw ah. da ngay aménager territoire def ay route yo xamné yi bo étudier les flux seet fan la concentration économique yi defee nga tracé ko. mais ñom dañuy jiital lan ngay wax lan nga wax. loolu la expliquer xam nga boy defal rew waaw mën nga ñëw sax fekk désert comme américain yi ni def nga né na tracé route l'économie va venir après mo am rendement koku mën nga ko def ci rew mën nga ñëw autoroute su motul 400 km. déglu rek dama lay expliquer mhm. man limalay wax dama ko liguey. acca ma lay déglu. autoroute bu motul 400 km amu rentabilité di nga fay péage ba dé, di nga def ay contrat ay 30 30 ans té jeexital économie biñ ci mën am quel que soit les schémas que tu vas mettre.

route du lo xam ni da nga koy da ngay ñëw rek yew def route dafa am aménagement da fay participer ci écosystème développement bi c'est-à-dire que erreur yi am Sénégal ñun dañu préparer yépp nuñ koy rectifier doone bi projet baax na bii projet bax da ngay xol lutax ñu def ko yu ci bari ay considération politique moo tax ñu koy def xamuñu nu ñuy développer réew loolu la la expliquer de damay alerter ñun loolu mooy suñu devoir du ñu xaar bañ naan mag ñun magum xamoon naa ko la ñun magum waxoon naa ko la lii ñu leen di wax nii di ngeen ko teg di ngeen ci teg bët. côté yëpp énergie baa ngi nii énergie. Sénégal demoon na fi ba am crise léegi ma wax ni ci ci laa Touba bi ah. wax ma ko ci terre bi amu ci dara loo xam ni mën nga ko apprécier ma lool moo ma jaaxal. mais parce que man xam nga duma nii liste wax naa la ne am na fi croissance nee naa la croissance bi baax. non non la nga ci wax. naa la am na stabilité Sénégal mais réew ëllëg moo ko yore. c'est l'avenir rassurant. ak stabilité. mais loolu mooy l'avenir rassurant le mot rassurant. maanaam mu dal xel te loolu ñi ko ŋànk réussir nañ ko. ma ne réew mu dal xel. moo fi amul réew moo xam ne élection yi sax boo organiser nit ñëpp a kaas naan fichier amul ak yooyu ça veut dire que dalul xel. et y a des sources d'instabilité aujourd'hui source d'instabilité yi am Sénégal gis nga nu mu toll élection yi source d'instabilité nit ñi amal seen bor fay ñu leen source d'instabilité la. violence bi insécurité bi source d'instabilité la gis nga ko vol de bétail dem nga ci àll bi ba gis vol de bétail nga jël sa alal yëpp jaay sa noix d'acajou wala nga jaay sa gerte jaay sa lépp jënd sa jur. nga ñëw ñu ko foofu criminaliser ko. crime criminaliser criminaliser ko mais mu ngoog lan la ci état mën lu dul. voilà ku ko def ñu teg wax daan yoo xam ne lay wax exemple type incompétence bu ñu dafa am vol de bétail nga ñëw dem assemblée ne léegi vol de bétail euh, crime la régler woo problème bi da nga naan vol de bétail bi fan la jóge ku koy def nga jël bétail bi nga defal leen ay puces utal leen ay périmètre borom vol de bétail nga jox leen ay terminaux. yoo xam ne bu génnee ci périmètre bi rek ñu yux nga sécuriser sax ñu koy sàcc. ma ne nga naan ma bétail bu am. déglu li ma la wax déglu li ma lay wax bu baax dama lay expliquer nga def ko benn nga sécuriser périmètre bétail bi nga sécuriser les chantiers de bétail yi sécuriser Sénégal moyen poste frontière yi ak les zones zone risque risque de vol foo risque d'incendie, de sécuriser. non ça coûte rien du tout. non mais M. Kamara, attends non non non ça que non non non

ak jëm sàcc bétail boo xam ne da ngay dugg frontière kenn du la génn nga dóor ko balu fital déet justement moom laa lay complétel borom yeku ko génn nga dóor ko balu fital mu dee loolu laa lay expliqué nag léegi xam nga première étape deuxième étape sécurisation frontière la wax ak sécurisation des points sensibles Sénégal boo génnee 26 milliards en 3 ans di nga sécuriser toutes les zones di nga def ay postes de police de gendarmerie juxtaposés partout di nga def ay postes communs ci nga service de contrôle yëpp nga defar leen di nga set fi nga zone centrale électrique mo fa nek di nga ko surveiller fi nga xamné ay animaux ño fa nek ay biens ay greniers yépp mën nga ko organiser sécuriser lolu moy premier pas bi et lolu le état bi deful parce que lolu le état bi xalaatul limu bëgg rek moy propagande politique té Sénégal dafa passer lolu ñun technopolitique yi li ñu gëm ak ñi nga xamné ño and ak ñun nek ay cadre yàgg liggéey ci politique am nekk ay parti yàgg liggéey ci assises nationales yi nekk ci coalition fippu dañu étudier suñu programme ba teg ko teg suñu équipe ba pare doog a ut suñu candidat. Mhm. ñun ñu ci politique. d'accord léegi nag dama bañ nga ju ngeen juum yéen yéen techno politique yooyu parce que mhm. réalité sénégalaise itam daf ci bokk. mais li yéen ñu ko gën a xam waa mais dañ non gën leen ko xam mais réalité yi daf ci bokk askan wi ñu xam la nga leen di jege di leen fajal seen i soxla doo toog ba mu neex la rek nga jóg ne leen dama bëgg ngeen def ma lii wala lële loolu moom baaxul waaw loolu moom loolu daf ci bokk waaw loolu ñun bokkuñu si ñooñu non askan yi ñu bokk moom ak fi ñu bokk yépp euh, euh, yàgg nañu ci jaxasoog ñoom te ba léegi ñu ngi jaxasoog ñoom looloo tax sax ñun loolu daf ñu yombalal trop suñu politique wax dëgg yàlla euh, loolu moom gis nañ ko

fu mu toll. fii mu toll nag pour faj ko il faut que ay jóg taxaw ñu boole ci jóg taxaw doo ne damay jóg taxaw nit ñi jóg leen taxaw te yow jógoo taxaw. te loolu liggéey boobu ñu ngi koy def comme ni ñu ko war a defee. d'accord kon nag dama lay wax ne dafa am ay erreur de gouvernance yu fi am et li gën a bon nag ci erreur de gouvernance mooy ñoo xam ne dañ leen di jox réew ñu jiital seen seen intérêt bopp yow nga ne mun naa yor réew jox leen ma. dinaa def lii dinaa def lii dinaa def lii ñu ñëw jox la réew mu ngi mel ni nga ne da ngay embauché nit muy liggéey nga ne mu na la man mun naa minance mun naa fóot mun naa togg nga embauché ko mu ñëw dugg sa saal toog ca kanaape ba aj tànk yi taal télé yi commencé zappé indi ay ganam di toog cigarettam ah di organiser ay fet kooku nooy def lu dul dàq ko mais loolu fi am c'est exactement ça ils ont donné un ils ont produit au Sénégal dañ leen jox benn discours

avant le parti ñu gis sama famille du dugg ci politique bi sa famille mooy mooy séddale di di nommer ay ministre di def di def di def loolu ñëpp gis nañ ko fi Sénégal donc nga ñëw ne man euh, d'ina d'ina d'ina fexe ba euh, Sénégal ñëpp képp pétrole beeg gaz bi lépp leer nga ñëw jël aw ci suuf di joxe ay pétrole wala ngay bëgg a signé xoolal li ñu mujj woon bëgg a def nii ci faire de Falémé bi à trois mois des élections lan moo ci nekk loolu li ci nekk mooy fer baa ngi fii amuñu ñu ko mën a exploité jox nañ ko. Turquie non non loolu dafa am c'est-à-dire que loolu tamit loolu tamit ci ci xel ñu yàqee Sénégal xam nga fii dafa bare ay tuufkatu kaani xam nga buñ la tuufee kaani dootoo gis. da ngay toxoñu rek. da ngay toxoñu politiciens yu bare ay tuufkatu kaani la population yi dañ leen war a expliquer que ressources yi ñu am monde bi yëpp ku yor sa ressource ñetti xalaat ngay am benn bi mooy nga fexe mu bañ a jeex. nga dencal ñii di ñëw ëllëg benn bi mooy nga fexe soppi ko ba am ci ay industrie mhm. beneen bi mooy nga fexe li nga doon importer di génn xaalis di ko fay nga bañati ko importer. loolu yëpp nag day fekk nga am yoo ko defee. ah am nga ko boo amee ressources yi am nga moyen yi. mooy boo buufee ci alal moom laa lay expliquer boo buufee ci alal. doo ñëw ne ñëw leen exploité mënu ko exploité danga naan boof naa ci alal nga def certification des réserves nga ne alal ji ma boof de 100 000 milliards. Éducation, mm -hmm. 8 000 milliards. Quand moi, je suis oublié crédit sur le marché financier international de 8 000 milliards, je suis l'équivalent de ressources de 8 000 milliards. Non, nous sommes les eh, Mais nous sommes les Mais nous sommes Mais nous sommes les Turcs. Mais nous sommes Mais Non, non, non, attends, attends. attends. Euh, Manela, MOU, nous avons négocier. c'est exactement ce cadre que nous aujourd'hui, ce cadre code des mines. Ce cadre code des mines, c'est adéquat pour ce que je expliquer expliquer donc dafa am benn système bu wax le top. Mhm. top ci ressource mooy transparence mhm. opportunité ak pertinence ñoom amuñu pertinence amul transparence leerul parce que ñoom jékki-jékki rek waxante ci suufu table bi génne ko ba fas yéene signé benn lundi ñuy taxaw ci opportunité bi moy nga djublu ay élection yow li ngay engagé yow xamlo yaay gagner xamoo yaay. doo élection dafa arrêté gouvernance dafa arrêté dafa affaire arrêté gouvernement bi mu mu doxal liggéeyam. mais dafa am phase bo xamné moom la ñuy wax si si si eggoo ci élection mais dafa am phase boo xam ne moom la ñuy wax phase u expédition des affaires courantes mooy li nga xam ne lii da nga ko war a def te boo ko defee dafay engagé bu mu ëpp ki lay remplacer doo ko defagum da ngay taaxirlu doo xaar par exemple entre les deux tours nga ne da ngay signer ay contrat wala nga ne da ngay xaar à deux mois des élections nga ne da ngay engagé contrat ou vingt ans wala trente ans loolu boo ko gisee rek dafa am précipitation te précipitation bu amee rek moy yakamti ak gaawtu dom ju mu jur rëccu am ca yoon loolu moy mais nak reccu bi ñom intéressé wu len parce que sénégalais ñoy reccu mais du ñom ñoy reccu donc Sénégal dañuy wara am esprit que ñepp bok duñu gëm luñu len wax nit ñi parfois buñ la buggee nax dañ lay dañ lay defal ay discours yo xamné yi ah da ngay foog ne ñii bu bu sax nga jox len man ñu bari dañ ma ko waaw dañuy ñëw politiciens dañuy nax ah est-ce que ni est-ce que yow do def comme ñom mën na man ubbile ndox seen bët xool man du ma wax ne dinaa def ak du def man daal xam naa li man loolu yëkkati naxaate yëkkatiwuma xam nga dafa am foo xam ne fa jaaree nag wax dëgg yàlla mhm. waroon mun a euh, dugg ci ay nga ba fi nga euh, di dénku man dafa am ñaari yëf yu may dénku Pape Ndiaye dafa am solo ci réew da ngay seet sa borom sa askan ñun Sénégal defal man sam papa ko alal sam papa financé wul sama étude sama yaay financé wul sama étude man état du Sénégal moo financé sama étude jàngal ba réussir ma jox ma ay post sam papa nekk maçon jóge Fatick ànd ak sama yaay ñu luwee nekk euh, Médina bu tawee ñu yëkkati seen bagage dem Grand Yoff dëkk ci inondation yi di ñefe muy liggéey ba mettre ñu daan dans d'excellentes condition man poto poto yi ma daan patax pataxee Grand Yoff sama doom yeeg sama sët yi fa la ñuy patax pataxee nga ne réew mi foofu loolu développement réew la donc réew day toll foo xam ne fii boo demee nag ba gis na sa réew defal na lépp. waaw mais loolu rek war na tax loolu war na tax doo wax ni dara baaxul. exemple la yooyu tip nga ci. man xam nga xam nga man mosuma wax ne dara ma ne. waaw dama waxuma ne dara baaxul. ok dama ne la toll nañu foo xam ne li ñu dajale ci alal ak li ñu am ci alal ak li ñu am ci nit ñu xarañ fii ak bitim réew waa diaspora bi ñoo ñoo ñoo gën a sol waa diaspora bi léegi ku ci jot numéro deux deux cent vingt et un sax da ngay tiit parce que soxla yi dañuy jéggi océan bi topp leen. bés bu ne donc bu ñu tolloo foofu Sénégal dañu ne waroon nañu am beneen Sénégal ku la dégg dafa mel ni da fi bëgg a jëlee soxla yi soxla yi yaakaar nga dañ ko fiy jëlee. si dama ko bëgg exactement voilà loolu laa bëgg a def xam nga noo fi jëlee cest à aussi li ngay wax ni dafay nekk ay promesse yu yu yu oh, xam a doy waar la ma ne ni sax xanaa man ku mënul ma ne ay promesse ku mënul bawoo ma ne ku mënul bawoo soxla nga fi bëgg a jëlee loolu laa la expliqué ku mënul bawoo lu yàqu yow ku mënta defoo lu yàqu yow man maa ne lañ koy défé kuko kay ma wax la fuñu jëlé xaaliss bi ak nuñ koy défé soxla yi ni ko fi waxuma la am soxla mais bo amé soxla da koy <laughs> da ngay fajj soxla yi bo ñu ne la fonds d'investissement de l'éducation ngay taxawal nga tout en charge état jof prêt xalé bi xalé bi bu ba paré mu rembourse état bi ci salaire bu travaux d'utilité publique ak ci alphabétisation nga intégrer enseignement bi enseignement religieux nga Google ko ci enseignement professionnel nga dugal ko ci professeur yi nga fexé ba am valorisation ba nga xam dinañ am salaire nek dans de bonnes conditions comme service le loolu boko défé quand kan moy amati soxla biir famille dafa am ay coono et liñu laaj xam nga lu gëna metti Sénégal dafa am góom moy li la wax ni góom bi déglu rek ma yeggali fofu mhm. góom bi dafa dem ba am boy boy régime bi jël buum tek ci boy boy bi dangal ko léegi xam nga lu muy laaj deuxième mandat mooy da may leen ma ma delloo bumba ca booy booy ba Sénégal situation bi métti na ba nga xam ne normalement su su su régime actuel bi defoon bilan waruñu sax présenté wu ci élection yi ñëpp xam nañu loolu donc éducation dafa am ay solution santé am ay solution nga mën a fexe ba médicament. Boubacar nga ni ngay wax régime bi yow yaa ngi may wax dem nga ci àll bi. mais ah. dem nga ci àll bi. Mhm. est-ce que gis nga li nga xam régime bi def nako ci àll ci ay piste de production. Mhm. ci ay château d'eau yu dul jeex ay forage mané man euh, ci ay machine mané nga dem Casamance la même chose. Euh, nga taxaw fi nga nan non régime bi nak yow tam. Ah, xam nga pap ñun lañu yag defar tali xam nga waxu waxu euh, ku fekkee man dama nek secrétaire général ministère des infrastructures tali yi fi nek yeb ma xam fu mu joggé xam de l'indépendance ba 2000 ñaata tali lañ fi defar xam 2000 ba 2012 yan tali lañ fi defar xam 2012 yan tali lañ fi bàyyi war ko defar ak yan piste lañ fi war a bàyyi ñun dajale nañu sénateur yeeg député yépp ba tracé piste yi ñu war a defar Sénégal pertinence piste yi piste yi war a déplacer les produits laitiers piste yi war a déplacer les animaux yépp dañ ko étudier dama ne la li ñuy def nii rattrapage yi ñuy def ak PUDC ak les puments rattrapage la boo xam ne bi ñu demee ba gis ne croissance bi yeggul ci nit ñi. ci lañ ko def pour rattraper kooku la ñuy wax taf yëngal politique gu taf yëngal la tuufkaan yi dañ koy def ku xamul mais ñun dañu fekkee nu ñuy tëggee kenn mënuñu tiital ci loolu kenn mënuñu ci réer. amee ah, gis nga ko. te ma ne ma ne gis nga ko. soo ñëwee jox nit jox nit bourse familiale. man du ma la ah. ne bourse familiale baaxul. Ah, loolu sax mu tane ko waaw xam nga du ma la ne baaxul. kon baax na. waaw mais man xam nga lan la bu am solo la. waaw ndimbal bu am <laughs> solo solo la surtout ki koy jël. waaw xam nga man duma ma la ne bourse mm-hmm. wax ne man. doomu wax semi aussi baxul déglul dama lay wax su doxee baxna na <laughs> waaye semi bu doxul baxul légui dama la nan yow au lieu ma lay jox bourse familiale wala li ma lay jox ci bourse familiale mun nga ko am ci revenu suma ma organiser économie bi ba investir khalis ba nga mën a liggéey tu vas avoir une autonomie avec une plus de dignité mais loolu choix yi jël mo bokul ak choix yi ñu jël kon dañu wara def attention mais bo invalidé ci liguey nak bu ni ku ku invalide dafa am eh, ma sa occasion parce que dafa am ño xamné ñi nous invalidité. Mhm. prévoir moy ba ku ñu xam taux d'invalidité. Mhm. xam ce taux de vulnérabilité. bu ñu taux parce que mën nga invalide ba paré liguey mën nga am mhm. professeur d'université mën nga am ba nga da ngay am ñaari critères yooyu ngay jël boko xamé da fay am ben taux d'indemnisation bo xamné ne da nga koy am moom mo lay permettre nga continuer lolu c'est des personnes dimbal bi lay don kon. c'est non non non kooku c'est des personnes vulnérables da ngay gis ko xamné militaire la won daal di xeex guerre yu dag tank bi wala mu am koku day am pension mais en plus de la pension da fa am ben montant bo xamné da daf koy recevoir ci fond c'est comme un travailleur bo liggéeyee ba paré da fa am un minimum vieillesse bo xamné da nga koy recevoir. mais lii ñu fonds yooyu fan lay bayiko mais lolu la expliquer dafa am ba pare li Ce gëmloo Sénégalais mooy amuñu xaalis on est sous-développé c'est faux on a toutes les ressources nécessaires jëlal or bi or bi yaa 6,6 tonnes d'or par an Sénégal or bi yëpp da nga koy jël yóbbu bitim réew bijoutier yëpp boo leen 100 kg d'or. lañ soxla mënuñu am mais loolu loolu ban choix la da nga war a 100 kilos or yooyu bijoutier yi soxla. ñu raffiné amna am amna ñu ko jënd amna nañ njëgam mais xam nga lan ngeen ko bëgg jaay jaayee dañ leen koy jaay comme ni ñu jaay prix bi avec TVA et tout au lieu nga jël une partie de la production bo xamné sénégalais ñoko mom ñu organiser nga jox leen ñu liggéey c'est-à-dire que Sénégal li fi nekk ci erreur économique ba ñëpp di joytu lolu ñun lañu tek le droit motax ñun dañu wolu suñu bop ci politique bi dañu wolu suñu bop ci choix yi ñu am choix économique ñun dañuy ubbi tey liggéey tay parce que nous savons projet yi yi baaxul yi dëng yi ñu wara jubanti jubbanti xam nañu yi ñu wara a bàyyi xam nañu yi nga xam dañu wara a mu ñëw taxaw pour nit ñi mën ko gis. ak ñata ministre ci gouvernement alors ñun suñu plateforme autour de entre 15 et vingt et ministres. té du du choix au chiffre comme ça fay am ministre yo xam ministre de souveraineté la du passé juróom justice économie euh, affaires étrangères. Euh, ministère de l'Intérieur, défense avec euh, ministère des finances. d'accord. accord waaw wax force la force armée kon kon kon kon ba tey. fi nekkoon du fi jógee. yooyu la ministre à vocation transversale. yu mel éducation santé environnement loolu aussi euh, dafa am importance ci parce que loolu moo lay jox un capital humain épanoui Moi, on mhm. nit ñu xarañ te yeew parce que. ministère dañu war a nekk ay nit ñoo xam ne dañuy mënte maandu. mënte maandu waxuma la mën bañ a maandu. wala nga maandu te mënoo. soxlawuñu cuune soxlawuñu koo xam ne kii euh, non loolu c'est clair mu des ministre à vocation sociale. boo ko amee ba pare nga wut pour les postes yi nga xam dafa am importance ci direction ci liggéeyu économie bi. nga xam ne dafa am jeexital ci entreprise yi. am jeexital ci société euh, ci ci ci famille yi. da ngay def appel ak candidature. boo bëggee nekk directeur général des douanes. wala directeur général des impôts du ñëw rek tabb la. comme ni ñu la tabbee woon yow. Ah, comme ni ñu la tabbee woon ma tabbee woon loolu système boobu. loolu dafa am ay risque ok dafa am risque. Mhm. dafa am risque parce que man ni ñu ma tabbee man dama toog rek am ku ma woo <laughs> ne ma yaay Boubacar Camara ma ne ko waaw mu ne man maay ministre des finance Makhtar Diop ñu ngi may doog a dama jaaroon trade point xool liggéey bi nga fa def ah ma bëgg waxtaan si ñu toog waxtaan. boobu maa ngi doog a admis inspection de ta ñu toog waxtaan ma wax ko li ma fa def wax ko ni ma gisee mu laaj ma ay question ci douane bi ne ma yow dama lay nome directeur douane ma ne ko déet teel na ni man man maa ngi doog a dem inspection. aj ba may may waaj a julli tàkkusaan mu woo ma ne ma bu subaa dinaa la nome ma noonu lañ ma nommé te yàlla defal ma ci sutura nag. ma def ci li ma ciy def mais risque la. munoon na ba munoon na loolu nga fi bëgg a jëlee. damay def appel à candidature. ñu tànn ñetti nit ñi ci gën a xarañ jox leen mission si ñett ñu ci la président di tànn direction yi ñu organiser ko am ay spécialistes ñoo xam ne yu mel ni ay secrétaire d'État ñoo leen di te du ñu am ministre yi du ñu am benn si ñoom benn influence. xam nga liggéey ak caaxaan bokkul. xam liggéey ak caaxaan bokkul. boo yoree dossier administration yore benn lettre mu war a dem fële da nga war a xam ne lettre bii de dafa war a dem finance. te bu yeggee finance dafa am Cheikh Diop mu ngi tok di xaar. parce que mm-hmm. amna dossier buñ ko wara indemniser parce que Cheikh Diop buñ ko indemniser wul am na loo xam ko mëna def bu koy indil gatché bo xamné mëna xaru ëllëg yow sa yoré dossier da nga wara am conscience que yaa ngi yore alalu réew dañu la yenn. Mm-hmm. bo ci yoré ay junni junni dossier da nga koy tasaare. jox ko nak ño xamné dañu mëne doone waa ji boo gañee telle commune rek ma jox la poste xam nga lolu amna fi. ne boo gañee ñu jox la xam nga gañekat quatre communes. soo gañewul ma dàq la ma dàq la xam nga loolu boo ko defee wax dëgg yàlla réew mi du mën a dox. loolu moom am na fi moom wax dëgg yàlla ay yéen loolu am na fi. mais loolu moom mooy Sénégal aujourd'hui mhm. te ñun boo gisee ñu dem mais li ñuy li ñuy def li gënoon yomb mooy ñu toog di seetaan. Mhm. boo gisee ñun ñëpp ñu jóg di taxaw di di di xeex pour Sénégal de parce que li ñu gis la ñu moo ñu tiital. li ñu gis moo ñu tiital. d'accord jërëjëf monsieur Camara Boubacar ma bàyyi la pour ay minutes yoo xam ni pour euh, mots yi nga xam mën nga ko jagleel askan bi. Mhm. lan lay doon ban message nga ci am. Euh, sunu message bu njëkk mooy askan wi dañu war a gént. Mhm. gént ne Sénégal war am ëllëg bu dal xel. Mhm. gént bi dafa war a gis-gis. gis-gis bi mooy que Sénégal mën na naat naataange bi ñëpp jot ci. te pour mu naat naataange bi ñëpp jot ci alal bi ñu am ak valeur yi ñu am ak nit ñi ñu am ñoo koy liggéey. Sénégal dañu war a xam ne am nañu góom góom bu am booy booy te ci biir booy ci kaw booy booy bi dañ ci teg buum te ci teg buum bi ñu ngi ko dangal ba pare di laaj ñu delloo ko ca booy booy ba waruñu ko nangu Sénégal dañu war a xam ne am na garab. solution amna Sénégal képp ku la wax solution amul daf ko xamul ñi xam solution yi ñu ngi fi ñu ngi bitim réew ñu ngi fépp ci secteur yëpp kon nag Sénégal toll na foo xam fi, fii dañu ko wara teggi ci loxo yi ko yor jox ko ay loxo yu mënte maandu foofu la ñu kon politique politique du saganté, politique du xasante politique du ñëw di ŋàññante ñu jël aussi alalu réew mi fexe ba wax dëgg yàlla ñu bañ ko sax loolu dafa am solo. administration bi ñu bañ ko politiser justice bi ñu bañ ko politiser. waaw loolu dafa am solo. loolu loolu boo ko defee rek di nga doxal sa réew. waaw ba pare nag nga fexe yemale yemale dafa am solo. kumba am ndey kumba amul ndey koo ñëwee kii lii nga def ko kii nga bàyyi ko loolu daf fi dem a dem ba nit ñi dafa dafa dañu mujj sax négliger ko alors que loolu ñu ko négliger. Mhm. donc ñun loolu la ñuy wax askan bi te askan bi nag ñoom ñooy ñoom coow yep, yëpp expliqué parce que coow barena, bare na yi bare mais expliqué rek expliqué nit ñi ñu comprendre bu ñu comprendre bu ñu yoree seen bulletin de vote dinañu xam kan la ñuy votel mhm. parce que sénégalais xam nañu bu baax li ñuy def ku yaakaane ne mun nga leen nax di leen jox ay millions ak ay milliards dañ ko jël lek ko ba paré bu élection jotté duñ la votel mhm. kon nak Sénégal tollu na fo xam jeune bi jeunes yeeg femmes yeeg dañu wara a mobiliser wu pour mu jëm kanam. et fofu lañu tollu wasalaam euh, Boubacar Camara man aussi ma lay bu baax yakarna ni liñu bolé xam nga ko mm-hmm. bu wax ci recevoir la ci émission Faram Facce mm-hmm. euh, di la wax ni tam amna satisfaction trop ci question yi parce que andenak fair play euh, ndi nga li nga xamni soxla woon naa ko ñuy gis-gis bobu nga xamni amna ko ci mm-hmm. ñu ñaanal la sa ci réew mi bu ci Sénégal yalla nako yalla def bu gënul ci réew mi tam yalla nañ ci yalla musal lolu ngi la koy ñaanal bu baaxa baax